waaye gëj a way gi mu gëj a way hmm. noonu la ko réew mi di xaare mu kii bu nee der kii ñëpp ko xaar kat baax nag te noonu yaatu nag ndax xam nga def si di jóg ak allah ba waa door ba ku ne nam na ko la wax nam ma ko waxul dëgg ñëpp ko nam ma saa ci wax la waaw booy baa ngi studio de ñëwul loolu moo da ko doon nëpp déedéet kay booy baa ngi studio moom li ngay toog ah, ah, ah kon dafa am yow ay ay nit yu nekk ci man yu lay woo di la wax sama liggéey da am ba fan am ba amee fan si jinne da nga yor ba yor ay fan si jinne la ko dee. kii en la mën a xamal mooy. waaw ah aju baax. wax naa hmm. ñu ngi si jóg di liggéey loo xam ne bu génnee gars yi nañ xam ne namoon nañ ñu mais ñun ñoo leen xam. te mu ngari. waaw namoon nañ ñu mais ñun. looloo indéwénal la xam nga boo xam ne mi ngi war a génn ci tabaski bi. ah ñu ngi liggéey ay yoo xam ne mi ngi war a génn ci vacances hmm. te xam naa ni micro bu ma njëkk jàpp ay daw ko nam jour tabaski moom xam naa ni moom euh, bu ma génnee ci xaas ko tuuti. la ilaha illallah non ba wax ba wax sama ñoom. yow ak man garaamu xam nga benn affaire moom la ko. waaw en exclusivité. ñaw bi ngeen ma ñawal. moom laa bëgg def ci posteru album bi. parce que xaas ko am na promotion boo xam ne gën naa ne ñaw bi ci poster boo ko def. mais moom anam fu mu toll. yow baa ngi ci biir yow bu ko yàqam eh bu ko yàqam. xëy na tey tey tey la sa xol di seetlu ba nga bàtt rek. exclusivité boobu nga wax yaa koy wax exclusivité. xam nga ñaar bi ni ma ko tuddee. noo ko tuddee namoon nañu la. maanaam maanaam ko woykati moom woykati. waaw woykati ku ci am ñëw na ko sol veyu tabaski. ah moo gën ci ñoom de bu ñu sama tabaski lan dama tabaski man. non boo solee moom ko doon sol bëgg nga leen sax avant tabaski la ñu war a sol. <laughs> waaw waaw waaw bëgg tabaski ñu si biir bàyyi la ñëw xanaa xam nga ne ñaar yi Sénégal du ko nam mm. sorti Sidi Diop waaw combat Balla Gaye mm. adduna koy rek la. waaw la ko eh! mais lu wax la wax c'est le géejuwaay. waaw waaw géejuwaay c'est le banlieue. balla comme acier bu jàppee du bàyyi. du bàyyi da ci tax ba arbi ne prit mu soog a wàcc. kii loolu kii moom mi korom la. waaye kii mi doon na ci loxo. daa indi kii tafu du cee doom du ko judduwaale maa ngi forcé bay du ko judduwaale. bu mu tuddee daal tamit loolu. booy bi kii mm-hmm. mm-hmm. dañ ko forcé mais waaw foo ko fekk micro lay fanaanoo. ñu naan saa micro micro kon non ba lu leen nit ñi dox nañu. saa yooyu laay def yéen sama toog sama kër ci yàgg rek commencé miime. léegi nag surprise la nar a defal. surprise. ama yow. am na ñoo bàyyi dafa naan. ah gëmal gëmal si. laa ilaaha illallaah bët bi. Eh. takk. Maale Bamba nee na. njëriñ. walaay bi mu daw daw bi lan. doo daw na doo daw lay dawee lan eh, duma dee ah, ah li moom xanaa moom si ma soirée xale bu jigéen bi dàq fecc moom ngeen ko décoré su ma ñëw bi laa wax li ngay jullee sa ñëw bee de ah, nii allah gisoo dafa fii la loxo yi du dugg sa loxo yi fii du dugg. daa ay fafar naaw. a ngi gisoo tegal naa tegal waaw tegal fii wax koy bàyyi. non mani waaw yii xam nga lii boo ko say say say toj fi. say loxo fii lay génn si. fii ngay dugg sa loxo. waaw mais non dama bëgg a xam benn affaire. waaw saar nga nag. saar la nga wuy ma wuy ma. man dama fi ñëw. waaw wax dëgg yàlla boobu ba tey euh, di wax ak yéen ay wax.

non mais yéen lii laa leen di jaay na album bi de non attends yéen lii laa ci suba ma taxawee ci buntu bi maa ngi wañ dugg toog di leen woyal mais yéen xamu leen dara ah non yéen xamu leen dara ah loolu dara non xamu leen dara ah yéen xamu leen dara li ngeen di ñëw dara baaxut te naa leen benn affaire de waaye képp ku ma xam muy suma soppe non non non déglu ma non déglu ma tey man maa war a wax waxal waxal non non man maa war a wax man képp ku ma xam muy suma soppe man di ma bëgg maa ngi lay ñaan fii non ah. bul fi loo bul fi ñawloo sax jàllaabe waxuma la yéen xamu leen dara waay yàlla xam nañ bis bi nit ci sowaay mais ngeen ba pare ci veille bi instant yi fan laay ñëwee yaa xamul rek non non non fan laay ñëwee lii ñam rek lii lii lii daa raar de lii daa raar yow lii xanaa man laqu lu raar la la ñëwal soo ko solee doo gis kenn ku ko sol eh nice kii lu raar lañ ko ñëwal sax moom da koo xamul dafa xam yow foo la gis baax solo ko essayé ko war ko solal mu xool lii sir fall sir nga taxaw grand théâtre nga taxaw grand théâtre rek non non non xamal ko lu xool li nga grand théâtre mais li laay sol man grand théâtre grand théâtre nga taxaw rek man non man bu sëñ Abdoulaye non man sëñ Abdoulaye Diop xaas man bu ne salaamaaleykum ci sama xew mi yaakaar ne lu ne laa sol ma koy solal li eh, moo ne eh, moo eh, ne ko modèle bi sax moom lay sañ ah, rek moom moom lay jullee Abdoulaye Diop xaas bu xonk jooy waaw lay jullee allah fafal naa maa ngi nii mais yéen lii mais yéen lii laa leen ji waaw mais si nag ñeneen jiw nañ leen xam ngeen seen ñaata non ñoo nekk Sénégal woo ma ne ma dama laa bëgg a ñëwal ma ne leen xaas couture mi xew ci jamono yéen waroo leen ma sax def lii mais nag dina attends mais nag du fi yam de damay génn léegi woo sëñ Abdoulaye Diop xaas mu jox ma ñëw bu bees tàkk ma sol mais man ak yéen police la jëm ah. la jox ma suma portable eh, eh, yow suma eh, portable damay dem yow leen ma laa wax waay bugguma seen ñëw bii waay bàyyi leen police laa jëm te. sax kàlla si ak lii la ñëw bi la dañ cee non di ngeen ko di ngeen ko rëccu de. dañ cee dañ ko dañ ko ma yoon newu ci. waaye lan ma waaye. yow boo ñu yóbboo police ñëw procureur a ngi fii. waaw nga bëgg ñu yóbbu police. waaw yow say fekkee yàq sa paas de. waaw day yàq paasam moom. bannage lii lu ci ne. ah loolu laa xamul. waaye Sidi mi mu dinaa ko. waaye Sidi Diop mu taxaw nga rafet rek jël micro bi dañuy firi laa. waaw waaye Sidi mu dinaa naqaree ñawal lii lu baax lañ ko ñawal. waaw waaye sàppate gi dem boobu. waaw. sapata gin lii rek mën na xoo xoo ah, tamit way yi muy way sax daan nag li mu sañ sa nag way yi muy way daan li eh bu jeetoon nag benn bu ko jam bu ko jam do bàyyi sumay eh da nga jam jam ko de bàyyi bu ko jam waay yow léegi da nga toog da ngay xeeñ sigaret toog la da nga toog xam ah, nga yaay xeeñ sigaret da nga toog da nga toog ah, baax na fekk naa di ko na ko sa poom du ma nekk ko yaay doon toog ci biir waay baax na ka baax Sidi Diop moom itam daa gedd lii waaye Sidi na gedd na gedd yow xanaa xanaa sa gars yi dafa bari fat sa nag daa bari si parti waaw léegi yow baax lii est-ce que jubluwoo ci pour yàq kii wu atelier bi réputation hmm. ah naaj kat modèle bi lu ci ne yow tam